العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد نور الإيجابي والإمدادي والإسلام بابي نور كوني وسر وجودي وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Wee, sampai dalam tepah. Biar ambil perapotan tuyuk. Biar kami asyidi. Muhammad al-Mahi. Nasi Ibrahimah. Ibn Sayyidul Islam. Anak Ibrahimah. Nasi Ibrahimah.

بجاتا سببا مينا بتكا وتملسو نما سنة برام بنا ملا كايتنا يوم تل كب مراتا نتلو ورابنا بلا فلتد وعيش إبراهيم من لوطنه dan melayani dalam asal dalam kedepan. Mohon bersyukur. Tahu yang kau jauh. Pelan pelan dulu. Wajah mata melayani. Biarin. Wapahin. Kau bahasa melayani. Rasul yang asal. Tiada yang mempunyai tempat. Kita berada di tempat. Kasih.

بدأوا السوريين بدأوا البيضاء بدأوا أمة الأرض المسيحيين بدأوا Thank you. Thiaw Kër muy dëkk bu sori capital sori Kaolack sori Dakar sori Saint-Louis ñëpp nga tiiri leen dajale ci naa sama bopp yàlla ba dara la tëdd ci man ci rek laa yëngatu te yàlla moo nekk fu nekk te yàlla moo ñëpp di si te rek moo eew omi uy ñaari yëf moom la yàlla may yonent yi ak jullit yi ñaari koy benn bi mooy uskuruni may naa leen leen uskuruni beneen bi mooy ud'uuni astajib lakum ñaari baat yooyu mooy yëpp képp koo xam ne yaa ngi mun a dajale ñu ne ala zikrillahi tabaraka wa taala ko ko nekk ko yàlla rek moo ko def parce que yàlla mooy tudd boppam ci boppam ci la mel ni boppam mu mën a ko ci xol beneen bi mooy ko yow nii nga sa jibla jotaay bi yëpp jotaay zikr wa daawa moo ko la yooyu yëpp zikrullahi tabaraka wa taala wa daawa lillahi tabaraka wa taala parce que moo wax ne ku yow nii nga sa jibla sa jibla bu fekkee booy ñaan yàlla yalla ngay ñaan yalla am grâce nekk bëgg nekk makka nekk nekk ñu na war yalla mooy yalla ñu ci ci kër ko sabra yalla ñu ñu ko di di ñu aggal ci bëgg di ñu may ñu bëgg jamm nga bu nekk nag dafa am ay dafa am góoram jamm nga bu nekk dafa am ay góoram ma ngi ci wetu yi sang moom El Hadj Malick sama xel ma fàttaliku jamono ba muy taxaw ci kanam tubaab yi mais nag du saa boobu jëlee leen alal jaa boobu jëlee leen mais suñu xol yi amul lu doon suñu xol yi ku ci war a dugg yàlla rek mu taxaw baat boobu ci ci gépp gépp ñàmbarte ci gépp gépp ngóora taxaw jàkkaarloo ñoom ne ah bu ngeen passé frontière bi fii la expliqué bi ñun la bu doon ci dugg tey yoon na ah ma ngi fàttaliku góor doon taxaw ci jamono boobu di jëfandikoo ñoo xam ne dëgg-dëgg ñoo ko ëpp doole màggatal waaye moo leen ëpp doole la ak seen bu jëf moo tax ba mu ne leen yem leen fii dañu yem foofu di taxaw maamalaay bi jamono booba bokk na ci góori jamono boobu nga xam ne nee nañ la bi bàyyi suñu réew réer bi ko jeex réer réer bi di ko di ko lëndëmal dañ koy teg ci kaw leeru Seydina Rasulullah parce que moom rek moo leer ñu taxaw jàkkaarloo xeex xeex métti métti ba bàyyi ñu Sénégal bu tedd yi ñu xam Sénégal bu tedd yi comme li fi waa waxoon taxaw wax am na benn doom boo xam ne foo génn ci moom tudd ko rek nit sa mbokk la Sénégal bu tedd boobu góor yu mag yooyu ñoo ko fekkoon ba mu taxaw seen jamono góor ñooñu la ñu mel noonu am dogu noonu xeex jàkkarloo dara tiitalu leen parce que ñoo gën a nekk kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatu lazina kafaru sufla dañ koo wax gëm ko xam ko dund ko amal ko mu am ba ca tey jii ñu toppee ñun ñii ñëpp ñoom la tax tolloon ñoom bu baax ñu teg ci buntu teg ci yoon boo xam ne natiija bi mooy ne yàlla dinañu satisfaire ci li ñu bëgg ci suñu peuple yi dañ ci bàyyi peuple boo xam ne bu gëm yàlla la dañ ci bàyyi peuple yoo xam ne ëllëg bu taxaw jàkkaarloog jamono danañ taxaw jàkkaarloog jamono tëdd ci comme Sénégal jàkkaarloog jamono boo xam ne jamono bu compliqué la jamono bu jafe la jamono boo xam ne laajaat naa mawqifu rasulillah laajaat naa mawqifu Cheikh Matiyan laajaat naa mawqifu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu li muqaawamati haada balaal alladi yuridu an yuxriqa Sénégal fi zamanin daal te loolu duñ ko nangu ah duñ ko nangu waaye man ma ñàkk ko nangu amul problème parce que voilà te ki koy bañ a nangu mooy ki taxaw jëf di jëf di jëf ci xale yi di jëf ci mag ñi di jëf ci jigéen ñi di jëf ci ko bongo kooku moom mooy soxla moom la yàlla dénk ne duggal ci jamono ji te mu ci duggal ci jamono ji xeexal sa réew comme ko sama xeexalal moom duggal ci jamono jubbanti jubbanti yi nga xam ne dëng na comme na ko sama xeexalal dugal ci jamono xeex li nga xam ne moom la war a xeex comme li waa wax léegi ci biir waxam ne ba ngay dem yonent bi ànd noonu boo ñëwee xeex yonent bi ànd parce que xam nga baraaya xam-xam dañ koy dégg xam-xam boo ko dégg mokkal ko daf lay waaye boo ko déggee ba nga xam ne amul benn instance boo xam ne mën na demee ci doxinu àddina muy doxinu biti weeg doxinu asamaan seeg mi ngi ci loxo yëpp mi ngi ci loxo parce que xam-xam la boo xam ne bu ko xam-xam bu dëggu te xam ko te yéene ko amul fu la xam-xam mën ta àggali fekk yaa ngi toog fii da ngay fii ndax lan usbi waxtaan usbi waxtaan lu nekk lu nekk jege ko ci moment boobu ci jóob mooy bi waa ji waxoon mundu wabaatu yëkkati alal xal bi maa la fàq baax ah maa ngi lekk waaye maa ngi si jóob parce que gisuma dañu fu ma yëkkati jëm sama bopp jëmee ko gisuma ko ah donc ana sajidu wa lan arfaa rasi alal ardi xata alxalaa tabaraka wa taala rabi am na góor ñeen ñu ngi fi ñu ngi dund ñu ngi am ñu ngi nekk ah nekk yàlla ma kenn இன்னும் அளவு நமக்கு தெரியும் முதலமைச்சர் முழு திஸ் தகவல் வெளியேற்று மாதிரி நடக்கு لا تاكل كوخ كل دباخ بولا توما كل دباخ ها بولا خسس كل دباخ بولا وقت لو قمنا tout à fait différent de ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas mais l'eau, le bar, ça se voit, dans le commande. ñii la may ñii la yëkkati nii loolu lay bàyyi bi ñuy tam ñu yëkkati ko ñu tuddee ñuy lekk ñu naan te mbalit mbalit yooyu la leen di bàyyi ñu foog ñu seen bi ñu nekk ci ay ay mbalit rek ci jotaay bu njëkk bi ak xale yu ndaw yi góor ak jigéen nga nu noonu dajale ko solu ci ci capital yi nga xam ne mooy jottale lépp comme ni courant bi di jottale lentille yëpp ñu bañ ba bëgg a def te benn courant rek moo leen di jottali ak suñu wax yi ci yirakum insha Allah wa yirakum bi banat wa yirakum bi asfar wa kibar wa yirakum bi ulamaai hatta يقول الله يا عبادي يا عبادي إني يا ملائكتي إني رضيت وقبلت فلانا في السماوات فأقبلوه فأقبلوه وادعوا له yàlla bu ko defee ci suuf yàlla laal la nangu nala la xabul nala la buggeel boo xam ne dañ dag yow kenn faa ngay toog sama diggante yàlla ashkuru yàlla jërëjëf man ngay gërëm man ngay sant maa ngi nangu tey may waaye nangu boobu di bàyyi ko ci yow ko sa làmmi yàlla ko sa xool yàlla ko sa loxo ñun di ko gis ko nangu di gën a daw jëm ci sew parce que nit fu mu làqatu la doon nit fu mu làqatu la doon yaayam ba fàttali ko ba xëy na ko toppal fee daa ko kër ah moom ci boppam attalul boppam ndax léeg-léeg mu ne dafay xel bu attalul boppam ko def بين القريب إلى من يقودكم إلى كان اكثر بطن وليد بطن كان اكثر كان وهناك أمني رجال يخليان لن بلد جهلان كتلان جهلان دولان جهلان من من فضله وكرمه يقود الناس إليه دلو جامع ليتيا بقلو جامع ليتيا نملو جامع ليتيا nam loo jam mais yàlla moom nga xam yàlla moom nga xam ne lii yëpp mooy suñu yàlla moom la ñu ko xam

فأحببت ci mbëggeel ci la yàlla amale leen donc ci yàlla fa tabiu min qul in kuntum tuhibbuna allah fa tabiuni yuhibbukum allah bon mbiram yàlla yàlla yëpp ñu ngi sukkandiku ci mbëggeel ñu xaw ci mbëggeel bëgg nag la ko jar bëgg la ko jar moom te doo gis ku askan sa liggéey kenn askan wi mu liggéeyul kenn ah? waaye nag lépp nag loo xam ne yaa koy def jaarale ko ci ki nga xam ne fa mu ko war a jaarale amul ci mun na jeex bi yàqu na ñu ne ko lu ko yàqu mu ne xale bi góor bële dama ko bëgg te dama ko bëgg sax ma tëj ñu ne ko yomb la ñu ne ko soldat moom soldat xam ñu ne ñu ne xale xale bi da ko d'accord ak sa condition sa wax waaye ci ñett condition da nga ubbi affaire yi ñu dugg ci ba pare que da nga dugg ci saa mu ne ko fekk jàng ubbeeku la lislaam nag dëgg xale nga ku tuubal na yow tuuti nga ci hmm? xool nga sa kilifa mu ngi Abu Ubayda ko kii am na ko gën a mag parce que kilifa laa kilifa rek moo mën a tuubal ñu ko ci Abu Ubayda yóbbu ko ba ci Omar ibnu Xattaab mu ne Omar ibnu Xattaab ndax am na ku la tiim mu ne ko waaw yow itam kii bi dama ne la ca am mu ne la ca bàmmeel doo xam ne mu ñëw ba taxaw ci kanam yonent dal di nataqa bi shahaadatayni dal di kii moo yonent mu ne waaw rek mu daal te mu génn jógee ci mu génn la mu waaye seetal daraja mbëggeel ah mbëggeelu yaram rek ci la tàmbalee waaye ba mu àggee ca bëggeel dëgg yaramam attaliku ko mu jébbal ko mu dara moom attanatu ko mu wax yow comme kon ñoo ngi bu baax a baax ci ñii yàlla di wax nga ni sa wax euh, yàlla mu ngi waxtu wu nekk ay alaamaat yoo xam ne dañ ciy tegtaloo pour xam ne yàlla bàyyi leen yàlla leen dimbale bi rahmatihi ah parce que yëpp ak yooyu لستم عليكم بمؤمنين ها بيقول رحمن waaye ki nga xam ne nekk xaas na kooku rahim rek la parce que àllaaxira rahim rek moo ko jëlee rahim rek moo ko jëlee su ko defee suuf seet yooyu nga xam ne yàlla na koy génn jamono bu nekk jaarale ko ci ruxamaaul ummati ngir rabtul ummati ilallaahi tabaraka wa taala yooyu ay mbóot yàlla la yàlla dëkkaloo ko kenn tànnaloo ko kenn ah seen maam yi ak seen bàyyi jiitu bañ siiwee loolu waaye terewul nguur yàlla nag kenn tënku ko ah mbaax yàlla kenn tënku ko ko liberté yàlla yàlla mooy def lu ko neex mooy manee lu ko neex mooy feeñalee ko neex

ñi ci bay doomu adama xam nañ xool ak bakkan bakkan ni mu réyee ak xol ni mu fóote xoolal sax ak bakkan ni mu réyee bala laa bàyyi bala bàyyi kenn mu jaar ci moom ba àgg sa xol ba parce que musiba ah musiba nakku dama la leen souvent dama dama wax ne man ñëw ma jàngal leen lan xam parce que ku wax souvent wax xam-xam ورسولا ورحمة te donc ñëw ma pour jàngale mais dama bëgg man ak yéen ñu jàngale xam-xam lan lay def lan lay jël ñun ay ci yàlla lañ alhamdulilah ñun ñëpp ay ci yàlla bu ñu xamee ñetti mbir yooyu nga xam lu muy tekki ak li saxma tiyaan jublu ndax nit koo gis yàlla ci biir wuti yàlla ci biir wala xat karam naa bani aadama walakin inna akramakum inna akramakum xaaral akram moom la doomu aadama yi di kër su yow laa doon seet comme ni ko xale waxee yow laa doon seet moom la moom la ñëpp di seet xaaral akram Cheikh Tidiane bokk na ci ñi tegtal nit ñi pour ñu gaaw a àgg ci wàllu nga ndax kooku bu ñu lay rek mooy munkidul aalam mooy munkidul actualité moo tax Cheikh Ibrahima na bu ñu lay wax ne man maay munkid ah yéen jox na ma may na ma defal na ma wala xam ne man maay munkid ku bëgg munkid boo jaaree ci man ku bëgg munkid boo jaaree ci man قلت لا اله الا الله محمد رسول الله فلا احد يقصدني ما عرفت am ko borom maarafallahu ak allah tabaraka wa taala jeex na lan moo la mën a bàyyi bi parce que yaa ngi ci biir projet boo xam ne ci biir liberté boo xam ne keneen mën ta jàng liberté boobu mooy lan parce que liberté bu tabaxuwoon bu tënkoo ji kuntu kanzan maxfiyan lam uraf fa ahbabtu an urafa fa xalaqtu xalqa fa bii arafina fa bii arafina seetal baatu bii ak xaraful yi ak xam ne moo nekk diggante baat bi di liggéey liggéey boo xam ne ak seetlu la gaañ rek nga ko mën a xam ah ñooñu ñoo waaye lii xamoo ko bu ci dugg xamoo nu mu yële hmm? xamoo yàlla أجيب دعوة الداعي إلى داعي وأنا أستحي أنا أستحي أن يمد إلي عبد يده يطلب فأرده خارجا من حسن سما جام حل المرق ودمنا ما جام وقت فرد ما شاء كذا المكمية في يعني ها؟ أنا يوخمي يا لما يمكو يا لما يمكو يا لما يمكو kami akan isi rumahnya. Kepesan. Pasalnya yang jaga dengan mengangkat kelihatan apa dengan apa. Hah? Menmalam di Jepun ya, kemarin di Jepun ya, kemarin di Jepun, kemarin kau ya, kemarin kau ya, yang mana? Maka, ini kami dari yang dikirinya, yang yang dia, dia yang lah. yàlla na ma may yàlla te nag ma xam boobu foofu àggee looy fii yaay fii wa tawakkal ala alxay alladi laa yamuut jeex su ko defee sa dund yëpp sabbix bi xam bi subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim yaay nit ki nga xam ne ñi la ngaa wax ne ku ma gis fexe yaay nit ki nga xam ne ñi la ngaa wax ne ku ma bëgg fexe yaay nit ki nga xam ne ñi la ngaa wax ne man maay nangam man maay nangam man maay nangam jaay yi nga xam ne lañ ko wax parce que lan parce que nit kooku yàlla làq ci nga génne ko bi istigfaar nga génne ko bi salaat ala nabi nga génne ko bi bismillahi tabaraka wa taala nit génne mooy kan mooy ëmadu xal mooy ci nit ko pour sauver a ngi ànd ak suñu manqué ñun ñëpp bëgg nañ ñu sippi suñu bagage yooyu bàyyi ko mu tàggoo ñu ñu dem te yàlla wax na ne seen bagage yooyu man yàlla dinaa leen tàggale ak moom waxtu leen ko sotte yonent ñëw ba ci euh, euh, siddal turu ndaxa yàlla na ko yonent yëkkatil sa bopp sa bopp te ñaar te wax ni yóbbu yonent yëkkati bopp yàlla na ko yow yàlla gis naa xeet yi passé ñu ngeen xalaatee gis naa ñu dañu leen dañu leen suufal ci suuf gis naa ñu ngi leen a bàyyi jigéen def ji mu wan leen gis naa ñu ngi leen a def yow yàlla ñoo defal sama yow yàlla defal sama mu ne ko baal la dama leen di histoire dama leen di yokk teraan dama leen di nangul seeni ñaan dama leen di nangul seeni seeni dama leen di dugal aljanna ni ko yow Muhammad luy sa xalaat ci xeet woo xam ne ki nekk ci seen kaw mooy Rahmaan ki nekk ci seen nit mooy Shafiir ah ki nekk ci seen nit mooy Shafiir ki nekk ci seen kaw mooy Rahmaan xeet woowu du sant dalal ak safe wala soo ko yokkee rabbuka fatarda loolu mooy xeetu loolu daal xeetu loolu daal bu kale boobu nga xam ne naa ko kawe dafa kawe bu ne waxtu wu nekk itam dina koy feeñalal ci biir jamono par jamono ay rijaal yoo xam ne bu tax toona ñoom dëgg-dëgg mën nañoo am ay difficulté waaye nag am nañu rijaal yoo xam ne ñoom tamit ñu ñëw nit ñi di jaayee seen bopp ci àddina ñoom jaayee ñu ko seen bopp yàlla hmm? noppalu noppaluñu seen yaram noppaluñu seen alal ñoo xam ne seen seen lu luñ am rek faral nañ ko defal ko daawatan ilallaahi tabaaraka wa taala te booy xool nit ci ci yàlla ba pare gën ko bëgg àddina du ko xam ni ngay wax bu la toppee itam daf laa topp rek parce que voilà ah mais ñun rek la waaye nag du xam ni ngay wax waaye nag euh, te jarrat lillaahi tabaaraka wa taala yuslimu llaahu fiika xayrahu wa sawaabahu wa fadlahu حتى تكون في الناس نورا يقتدى ويقتدى به الى عند الله تبارك وتعالى ويا خار امين لولا لولا شي جاتاي Wah, ini, wah, bisa kuih jatuh, Pak. wax ko ñaan def lu baax loolu ko gën a loolu hmm? gën a puusé gën a puusé gën a dugg ci baax boo gisee kuy def loo xam ne mi ngi am njëriñ pour xeet yoonu daal Muhammad wax ko jazakallahu xayran ndax ñu gën a góorgóorlu wax ko ne yaa ngi fàttali yaa ngi fàttali yaa ngi fàttali parce que xaare foofu rek a jaar ba semence hmm? ah, parce que bu taxoon ak suñu góor yooyu bon Sénégal français yi am ci ñu ci bëgg bon comme ay ay waa ay kii façon bu ñu yor ñu doon ah, ay sagale yu bëri ba dee xamul ci ci lu waaye nag boobu ñu taxawul loolu dañoo taxaw ñaan yàlla suy liggéey ci yow yàlla bu mu dagg yàlla ko taxaw ci suñuy sët suñuy sët ak suñu sëtaani sët ba Sénégal nekk li nga xam ne ñun noonu lañ bëgg ñu nekkee ko ñu yàlla la wér ah su ko defee waxtu nekk nag ay ay góoram وخونك أب أي بطر وخونك أب أي أسار يبين يدور الإسرائي ما دق دق إلى وأما ذوق وأما مص إلى خمين فتلك الرسل فضلنا بعضهم على ورفعنا بعضهم فوق بعضهم فوق بعضهم درجاتهم. فجئت طيب، من شعر القرآن te dañ koy dund te dañ koy xam te nit mooy mut yàlla te ku yàlla teeñal ci wotam nag wotam ci boppam te ku nekk la koy teeñal am na ñoo xam ne summa awrasna alkitaaba alladina summa awrasna alkitaaba alladina stafayna min ibadihi donc kon yàlla yastafi min ibadihi kama yastafi min almalaikati donc bu la yàlla fay sabaa wa innahum indanaa la mina al-muttaqiina al-axyaar yàlla si fii ah kon yàlla ñu yàlla may jur yàlla yàlla yokk sa dëgëraay ak sa xabool jamono bii lëndëm na lëndëmaay boo xam ne soxla na ay góor ay góor ay góor yu am taxawaay ay góor yu am fit ay góor yu am xam-xam ay góor yu ne wax li xam te yàlla tax ay góor yoo xam ne mën nañoo dégg jëngale kàddu yi fii ah lillah te mën nañ ko ñëwee dem ko koy xëy lillahi tabaraka wa taala donc yàlla may nañu chance ñu jot bu fekkee jotaay bi di ci wàcc ci ngëneel yëpp yàlla ñu ko yàlla séddale ñu yëpp di tasaar bi ah euh, sëñ sang bi ñu ëppale

ci jotaay bi comme si ñëpp di barkeloo ak itam pour wax la jërëjëf jërëjëf ci sa liggéey dana na ci yàlla yokk ndimbal parce que xale yi soxla nañ ko jigéen ñi soxla nañ ko mag ñi soxla nañ ko soxla nañ ko leen di wax taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum allaa na'buda illa allah walakin ak ci nekk ala mustawa fahmi haadihi kalima parce que li ñuy wax te xamul ñoo ko delloo ñi nga xam ne sax yow te xàmmeewuñ baat yi xamuñ xam-xam la ilaha illallah yàlla ñu ko yàlla xamal ah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. waa dañ la bëgg a sëriñ bi dañ la bëgg a présenté suñu ñaari gan rek dégg nañ sa kàddu bu baax ñu lay ndekkeel bu baax sëriñ Aali sax yaakaaroon na ne Fatick bu métti moo la jot waaye nekk maqaam mooy la dugg boobu léegi Aali ku bëgg yërmande jëlee ci yow nee na ma sëriñ bi na bi ngi bind sànq nekk booba yaa ngi fàttali ko Ablaye te maqaam boobu nekkoon démb jërëjëf sëñ bi ci loolu ñu nga defal baax ñu ngi lay présenté suñu gan ñi nga xam ne soo ba léegi ñu toog di la xaarale dañ ne woon dañuy commencé ak cérémonie bi ak sëñ bi ma ñaan leen pour ñu toog ci tëb sa ngoon ba léegi ñu may ma mooy soxna as ay satu Ndiaye sama doom baay di sama jabaat di sama sëb maa ngi nuyu baax sànq dama ko doon ci biir kër gi mu ngi ànd jàmm yàlla bu tedd nga xam ne mooy Babacar Kébé nga xam ne moo fii ci sous-préfet Ndiédiène ñu ngi fii toog am na ñeneen ñu dem. sans que ci ngoon dama leen waxtaanal ne na yéen sama waxtaan ak yéen xajul fii dama bëgg ñu dem ba tànn ba at yëpp xool leen ñu wax li ñuy wax ñëpp di ko dégg ndax ñun lépp doon dégg sëñ bi xam na nag sonn na te guddi na waaye nga may ñu rek ñaari baat yoo xam ne yaa ngi ñu sant ko ko soxna si dafa ñëw kër ga léegi may waxtaan ak moom ci wàllu politique ma ko bu ñu taxawee ci jàkk yi mbaa ci ci daayira yu ñu gàmm yu ñu di waxtaan yàlla jàmm ak yéen daal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu defee isra wal mi'raj dafa ñëw ñëpp xam nga la sama borom jox benn bi jox naa ko ñëpp benn bi man ak sama mbooloo mi ma jiite benn man kenn képp maa ko yeew donc loolu zaahir loolu la bàyyi wax ne kon nag nguur ak yàlla bi mooy nguur asamaan mun sa nguuru suuf te bàyyi na ñaari nguur yi benn la mooy tëdd bi ñu xoolaat man ñu ne man ko Sall moo tax bi liggéey réew mi ci bi mu toroo ñëpp ma xam ko yàlla dafa wuti nekk beneen mooy lu waa Sénégal bi ñëpp xam ko waaye secrétaire d'état bi nag waaye te de ko moom waaye maqaam bi mu toog dama présidence bi soo ko joxee dafa ñett dafa ñett moom ma ne ko nag ñoom dëgg luñ féetee kat ma ne ko démb wees na duñu mën ñu wax ëllëg ñëw bu tey lañ am waaye tey bii nga xam ne yàlla moo xam nag sàmm cheikhul islam dañu jàngal ñun ñu borom réew kenn du jur ak moom loolu ndax muy sabraay la boobu bëgg mën ko wax nay déggoo ak suñu président réew ngir ñu mën a jëriñ ca moom mu mën a mën a jëriñ ci ñu sëñ bi xam ni ko wax fii lu ruuy rek lay fat waa ñu ñoo gàdd yaram donte yàlla moo gën lépp nag ndax bu loo amatul def du ma du ma la wax allah subhanahu bu loolu amatuwoon mbooloo du moo tax moo loolu moo tax ngay jóg di ay dër fu ne ngay loolu wutu ci sama bu rafet jërëjëf sëkkër Mbàkke alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah jooju wax ñu mu ko biral rus naa ko biral rus naa ko biral ci sama mbooloo bi waaye jox na ma lu rëy ndeysaan sama doom na fi xool ndax bi bëgg la mu bind yaa booloo na moom ndax góor gi wax na lu rëy wax yi mu ngi ko gërëm asiru yasir ma atis danga santal baax ci loolu amin amin amin sëriñ amin sëriñ amin incha allah suñu àll ba ñu rek jërëjëf loolu nag wax bare yow kenn du la fàttali ba ñu rek ndax yow ñu fexe ba sëñ bi ñëw fii ma dox ko ba mu ñëw fii yàlla su ma doon bii maa ngi sant dina gërëm ndax bu ñu doon fii dañu am gàcc ndax programme am na programme ko nii Sénégal fële ci Dakar ëpp na bii fuuf gisuma ko ma dajeeg moom ci benn programme boo xam ne la ma wax fexe ko sama doom man na boobu alhamdulilah ma ñëw ba sama dëkk nag soo ma xam ne bu aw ko fii mu ñëw fii alhamdulilah loolu am sa jàmm bàyyi sa la nga lay toog fële yaakaar naa bàyyi moo toog al al alal ko suma nees moom moo dëkk bi càpp ko fële tudd yëpp mu ne si bàyyi ko ma nga nee toog léegi la ñëw si mbooloo bi liggéey ba kaw la yaakaar naa xam nga ko sa doom la alhamdulilah waaye maa ngi nuyu sama sopp yii nga xam maa ngi tuddee Touba léegi mais ñun ñoo wax ne ñun ñoo wax ne alors ak tel ki ñu faral nga xam ne moo talal suñu carte mooy Macky Sall je dis mooy Macky Sall maa ngi koy ci internet bi internet ko waxee gis naa ñu may xeexee man ñu may xeexee ma ngaa woon photo bi nga may fexe ma ñu ne man maa wax ne Macky Sall danaa ko génne réew mi photo yaa ngi sama poos am na ñuy jox sama kii di ko di ko ko xeexe ne sama jaay comme dafa am mbooloo xam doole ci réew fii waaye naa ñu ànd pare nañ pare nañ xam naa waaye maa ngi bëgg sama gerbaat bi te ni suba dina ko tuddee bëggoon dem tëmbal ba bëgg naa def waaye sonu na ëpp sëñ laa bëggoon mu xaar ko en Côte d'Ivoire mooy yor fii nee naa ko nag sëñ bi bu guddi wutoon bu guddi wutoon ba yàgg na doon dama tabu fii benn kër fii te bu ko naan la ko waaye mën naa la may ngant ba gën a ñëw allah benn dana ñëwaat nga gis ko nga ñaanal fi sànq dafa ñëw ma ne ko soxna poto ak poto ak poto mu dugg ci kër gi jaar naa ci yow te toolu ndigal Cheikh Ibrahim mu ne jubóo sa tànk moomul jubóo am nangam jubóo nangam moo jub dëgg la jubóo nag jubóo nangam moo jub la bàyyi woon ko fële cat maa ngi koy ndokkal ma a ñaanoon man comme ñëw nga te yow yaay ki nga xam ne yaay doomu Cheikhul Islam te alawal yëpp suñu at bi kon ñaanal yàlla subhanahu wa ko moom mii yàlla may ko ndam ci mandat bi ak mandat bi ñëw ak mandat bi ñëw incha allah te dana ko yéen nag mandat bii ak bii ñëw ak bii ñëw patron bi mag say tamit mandat bii ñëw bi nga dafa soxla incha allah rek nga xam boo soxla rek ñu jàppale mana lebih bagus di sini. Kajian yang lama lama kita lakukan. Kami ada mukanya kembali. Bayi Ali, jadi jauh yang lama lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.